Euh, homme politique euh, souvent aussi mën na traduire li nga xamante ni moom mooy générosité parce que quelque part aussi lii xew tey jii mën nañ jàpp que ni générosité Ousmane Sonko la amee. waaw c'est vrai que euh, tey Ousmane Sonko yaakaar naa si il a il a il a fait preuve de générosité politique. oui et je crois que commencé wul si élection présidentielle yi. oui oui euh, il a fait preuve de générosité politique si élection législative yi passée si élection locale yi. oui parce que ay maires yu bëri. en tout cas ñu nekk actuellement en place maire yu bëri c' est grâce au charisme de Ousmane Sonko effectivement moo nekk seen place. Mhm. loolu moom ñëpp xam nañ ko. Mhm. parce que non seulement bu ñu demee si élection locale yi. oui euh, moom bu ko neexoon Ziguinchor lay toog di fa di fa. campagne parce que foofu la newoon foofu la mhm. bëggoon euh, nekk maire. mais on a vu que il a passé presque la majeure partie de son temps di campagne à travers le pays di jàppale yeneen candidats yoo xam ne ñoo nekk si coalition bi. sa dans sa coalition. Mhm. te aura boobu ak euh, charisme bi ak engouement bi nga xam ne moom sa moom la caravanam daan suscité fap fu mu jaar. Mhm. moo taxoon y a une razzia. ci élection locale yi. Mhm. ba tax nga gis ay candidats yoo xam ne. moi je vais citer tout simplement euh, tu, prends la mairie de de de, de c'est un oui. jeune de rien du tout. c'est Naïssa Laye Samb. c'est Naïssa Laye a gagné face à à un ministre. Abdoulaye Diouf Sarr oui. et cetera et cetera. avec tout ce qui s'était passé Barthélémy Diaz ñoom ñaar à l'époque c'était Mbour Sow l'a aidé également et li ci xaw a gën a kokas mooy que tey jii écart bu Barthélémy Diaz gagné woon ville de Dakar moom la lu mu tudd ba Diomaye Faye gagné euh, voilà wala ak euh, amadu Ba donc nga dem un peu partout dans la banlieue oui. tous ces maires la on a vu des Ahmed yi nga xam ne euh, Sonko maire Guédiawaye waaw maire Guédiawaye def le tour de la banlieue donc il a tous ces gens-là à être sur, à, être, à devenir maire. Mmh. il faut être, euh, avoir une générosité et une vision aussi. Euh, savoir euh, faire de preuve d'altruisme. Mhm. maanaam sant sa bopp. Euh, mën a jiital l'intérêt général. ñu ñëw si élection locale yi. oui élection législative. au législative ñu gis que ne listam bi ma nekkoon euh, bu mu doon dirigé il était la liste titulaire. Mhm. de Yewwi Askan Wi liste boobu am problème ba ñu écarter liste boobu. Mhm. mais bu nekkoon keneen peut il va voilà. il va croiser les bras bañ a dugal si xaalisam bañ si dugal aussi euh, bañ si dugal boppam wala boog bu si duggee tamit daa am nu mu siy duggee. Mhm. de telle sorte que voilà tout le monde en tout cas ces militants wala ces inconditionnels vont se dire que ah comme Sonko bokkul si élection législative bi man du ma du ma rey sama bopp. Mhm. mais malheureusement ou bien heureusement il s'est donné à fond pour aussi cette élection législative là liste comment on appelle la la liste des suppléants. oui mën a am am lu mu am. Mhm. ba euh, assemblée nationale mel ni mu mel. maanaam ñu mhm. dem ba am euh, nar a créé naroon créé sax une certaine cohabitation avec à l'assemblée nationale avec euh, la la majorité. oui donc ça également c'était euh, une preuve de générosité politique. Mhm. ñu ñëw ci élection présidentielle moom bu mu demee ba xam ne. ñëpp dañu waxoon ne moom mooy nekk candidat mhm. mais moom bu mu demee ba xam ne man ak gars yi fu ñu dem ak man parce que déggoon mu ngi woon kaso mhm. mais mu ngi doon dégg ni ñuy dikk naan ñu nekk si nguur gi naan tout sauf Ousmane Sonko mhm. donc nañ def lépp ba du nekk candidat. et il paraît que vidéo yu mu doon def sax pour soutenir la candidature de Diomaye. ba mu koy def mi ngi nekkoon ak liberté donc donc ça il fallait il fallait de l'intelligence politique. et du courage politique. mais également de la ma dem. mais nag bu ko neexoon mu ne man duma dem mais keneen du dem mais dafa jël kii ne léegi Diomaye moom laa choisir yaa ngi dégg. Mhm. xam nga bu ko neexoon bon il aurait pu choisir Birame Souleye bi nga xam ne mooy l'administrateur du parti. il aurait pu choisir quelqu'un d'autre wala mu ne waat parti bi sax man daal comme demuma. Mhm. nañu xaar deux mille vingt neuf man na su deux mille vingt neuf yàlla mën na def ma génn kaso après je serai candidat mais il a pas fait. Mhm. S'il avait fait comme Karim Wad, il aurait pu faire comme Karim Wad. Karim, quand il a eu les, mêmes problèmes, les oui. mêmes déboires avec la justice en mais il aurait pu choisir un, un, un, un, un candidat de substitution. te je crois que loolu moo indi woon problème bi ak Madické maître Madické Niang en 2019 daf leen noonu mais parti bu toll ni PDS warul toog ñu dem élection ne PDS du am du am candidat mu dem waxtaan si ak Ablaye Wade les gens du PDS l'ont mis à minorité ne que non non amuñu beneen candidat amuñu plan A amuñu plan B plan benn plan la ñu am mooy Karim hmm. mais Karim Sow boobu s'il avait cette générosité bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko am dafa naroon wax ne joxe ndigal ne non non nañu teg benn candidat mais yoon yemul benn hmm. <laughs> yàlla bu waxee ne yow la yow la mais bu waxul ne yow la tamit il faut pas forcer le destin effectivement il faut pas forcer le destin. D'accord. Mais il l'a pas fait, malheureusement, tu as vu ce qui est arrivé avec le PDS en avec Karim Wade. <laughs> Donc, Sonko, il a eu cette générosité-là, cette vision-là. Alors, tout le PASTEF aussi a suivi, les, militants de PASTEF ont suivi. Même nous, bon, ils n'étaient pas à d'accord, mhm. mais après ils ont compris qu'ils sont revenus à la raison, ils ont compris que c'est pas pour rien que, Diop, euh, que Sonko. Sonko. a désigné Diomaye. Mhm. il faut jamais penser que nga ne man. man maa fi ne. avant moi après moi y personne. dégg nga. oui mais adduna doxe noonu. d'accord c'est-à-dire comme comme ni waa PDS doon waxee si temps Ablaye Wade yow. yow te xaw ma naka lañ ko doon waxee le la ah. constante. Mhm. oui la maanaam waaw. yow yaay constante bi ñun ñëpp nous sommes des variables. Mhm. mais ça aussi boo ko jàppee noonu. ça loolu loolu loolu un parti politique ne doit pas ne doit pas fonctionner comme ça. <laughs> un parti politique ce n'est pas dire que voilà yow yaay secrétaire général bi rek te élection bu ñëwee yow bu dul yow kenn du dem non non c'est-à-dire dans un parti politique. un parti politique c'est a démocratie <laughs> te démocratie mooy lan même le plus petit militant am na droit yi yëkkati loxo ne man dama bëgg nekk candidat <laughs> comme ça se fait dans les grandes démocraties aux parti bi dajee ne nañ dem primaire bu nit ñi voté parti bu dajee voté ne Ayib mii la ñu wóolu mais Ayib bu nekkal candidat. Mhm. mais Macky Sall aujourd'hui ce qu'il a fait d'ailleurs moo rey Amadou Ba. dinañ si ñëw. voilà dinañ ci ñëw euh, le temps peut-être ñu jàngat ak euh, Ayoba le cas de Ousmane euh, Sonko maa ngi koy wax léegi homme politique li ñuy wax mooy narcissisme li ñuy wax mooy égoïsme mais Ousmane Sonko dafa ñëw indi beneen valeur valeur boo xamante ni souvent dañ koy fàtte mi valeur de partage mais aussi fàtte que ni wala sax choisir parfois li nga xamante mooy intérêt général jël sa intérêt particulier teg ko de côté. oui eh, c'est Ousmane Sonko dafa am lu mu jaay jeunes yi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam. dafa leen jaay benn projet. Mhm. jaayu leen nit en fait. projet la leen jaay ni leen lii euh, laa yéene réew mi fii laa bëgg yóbbu réew mi mais lii projet la ay nit ñoo koy doxal du man maa koy doxal wala du diw moo koy doxal ay nit ñoo koy doxal donc moom bi mu demee ba xam ni moom mooy cristalliser toutes les attentions euh, mu fexe ba euh, ñi nga xamante ni ñoo ko bëggoon faagaagal mu xëcc seen attention yëpp ci moom euh, pour bàyyi ki nga xamante ni mooy mooy son plan B nëbb ko nëbb ko nëbb nëbb ko askan bi nëbb ko ñi nga xamante ni ñooy noonam yi nga xamante ni ñoom bañoon bokk ci présidentielle bi parce que boo gisee bi Bassirou Diomaye Faye bi ñu ko tëjee kaso ba léegi mhm. euh, Ousmane Sonko fexe na ba lépp loo xamante ni ay mitit la lu ñu doon teg euh, ci kaw Pastef mu jiitu ci kawam moom mhm. mi nga xamante ni il était dehors il était en liberté il a été barricadé chez lui ñi di ko génnee nit ñi di ko dóor boobu jël nañ ay accusations yu graaw teg ko pourtant ci kaw Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. mais les gens n'avaient même pas le temps d'organiser son procès mm-hmm. pour le rendre inéligible mm-hmm. parce que aa mosuñu yaakaar ni kii Ousmane Sonko dina ko désigner pour mu nekk candidat à la présidence donc loolu mooy loolu mooy génie politique bi nga xamante ni doxal na ko digganteem ak ak ak ak donc comme il a vendu un projet Euh, c'est normal que bu yé demee ba yegg ci fii mu mu mu mu mu definir li nga xamante ni ay stratégie la yoo xamante ni projet bi euh, bu teggoo ci loxo yooyu dina mën a àgg foofu nga xamante ni foofu la bëgg projet bi egg ta moom yàgg na pour man prévoir que ni Bassirou Diomaye Faye euh, moom mën na koo wuutu ci ci ci li nga xamante ni pour téye projet bi àggale. justement maa ngi koy wax lu mu tudd Georges Nesta ni vidéo sax yi mu doon def pour soutenir la candidature de Bassirou Diomaye ba mu koy def moom mi ngi nekk ak liberté boobu man j'étais au courant des vidéos mais j'étais pas au courant du contenu contenu mhm. na ay vidéo ko barricadé mhm. mais mi ngi koy teg pour mhm. woote euh, ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy militants yi ci ay ay na ko pour euh, jox conseil militants yi au cas même il avait même prévu au cas une vidéo au cas même mu xamante ni euh, lii nga xamante ni mooy bakkanam bakkanam pouvoir bi jël nañ ko donc il avait tout prévu donc mais li nga xamante pouvoir bi tamit mënuñu quand même mënuñu ko woon imaginer mooy choix bi mu def sur la personne de Bassirou Diomaye Faye parce que y avait d'autres qui qui qui qui étaient là y avait plusieurs personnes qui étaient là boo xamante ni choix bi mënoon naa ci ñoom mais mosuñu imaginer ni kenn ku nekk kaso la parce que amoon na ñeneen ñu nekk en liberté ba si ay ay ay ay Birame Souleye Diop ngi fi ay Abbas Fall les Cheikh Tidiane Dièye étaient là même s'il pas du PASTEF et tout mhm. euh, ils étaient en liberté ils kenn mënul woon xalaat ni kii nga xamante justice mi ngi koy poursuivi mi ngi kaso moom la Ousmane Sonko di tànn comme plan B pour mu représenter euh, le projet PASTEF il l'a bien protégé mhm. parce que pendant tout ce temps là moom euh, métit yeeg yëpp dalu ko moom Guy Marius Sagna di na benn xel yoo xam mais euh, à l'extérieur, oui, euh, mhm. une tournée dans la, changer dans la diaspora. Accoutrement, changer façon de voir. Guy aussi était l'une de ces personnes yoo xamante ni mënoon naa porter le projet. effectivement mm-hmm. ak son désintéressement bi nga xamante ni moom la am. de bi nga xamante ni mënoon na quand même yooyu nga xamante idéaux moom la Pastef di défendre yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu ñëwee Sonko wax altruisme wax nañ ko léegi wax euh, partage wax euh, li nga xamante mooy générosité euh, candidat Macky Sall wala ci boppam le président sortant bu koy wax lan la wax indifférence totale. waaw bon